di sante yalla bi nga xamene mo ñu mayat katan ba ñu fi di def waxtan di ramadan di hadis ramadan di jangale yonte bi Alaihi Wasallam li nga xamene moy mooy bu barke bi weeri tiranga bi weeri jégal bakar bi waye weer bu yubi bi mbokk jullit yi nga xamene mu ngi ci si ndaw wi weer ba ngi ni di wae wae mbokk julit yi waye waye ramadan bu jeexee tamit neeku ne jaamu yalla dafa wara a wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin yàlla subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamul sa borom yatiyakal waaw kon nag jaamu yàlla duñ ko imal si weeri koor rek weeri maa ngi doon def lu baax maa ngi doon def lu lu yàlla santaane weeri paase ma bàyyi déedéet déedéet déedéet déedéet mu'min imaanam gomam dafa war di yokk waxtu bu nekka waaw al imaanu yaziid wa wa yanqus yazidu bi taa mbokk jullit bi di moo ngaa gën a jaamu yàlla sa gom yàlla dafaa gën a raise up dafaa gën a yokku waaw te jullit bi tamit boo jógee si weer gu barke bi weer bi nga xam ne daf la setal wécc wécc wécc sa bàkkaar macha allah dangaa mun a war a góorgóorlu ba nga ne ah man de naa li nga xam ne moom laa setal suma yaram ni ñoo moytandikoo tilim si suñu yaram ak suñu yére bu jógee si wéeru koor bi tamit noonu lañ war a moytandikoo bàkkaar mbokk jullit yi ñu yàlla yàlla subhaana mu nangul démba si guddi defoon na ñaan yëpp di yaakaar am yaakaar si yàlla ne amaana mu nekk guddi bi ñoo ut muy guddi laylatul qadri waaye taxul tamit ñu noppaleku de gis nga yoon sa salam daf ñu ne last ten si fukki fan yu mujj yi bu buñ noppaleku de ne démb def nañ ñaan def nañ jàng nañ nangam kul wala def nañ emale ko si loolu déedéet nañ leen continuer mbokk jullit yi nañ leen continuer bañ ne guddi sax balaa ñoo ne ëllëg la ñoo julli guddi boobu sax guddi nangu ñaan la buñ ne ëllëg la ñoo julli korite incha allah guddi boobu sax guddi nangu ñaan la loo si mën a def si ñaar ñu def ko bon def démba màggal démba leelatul qadri mënulaa tax a bàyyi ne ah def naa ko dem démb rek jeex na déedéet fekk weer bi deewul rek bul bàyyi waaw ndik xamuloo ban la si bés yi yàlla rek a ko xam xamuloo ban waxtu si waxtu yi yàlla rek a ko xam kon nag boo defee yëpp am yëpp boo bàyyee nag bàyyi def yële di nga ñaaka am yële bon nag boo buggee am yëpp nag defal yëpp waaw boo buggee am yëpp daal defal yëpp si gàttal kon nag ñu ñaan yàlla subhana taala ñaan yiñ ko ñaan démb yàlla ko yàlla nangu yàlla ñu ko yàlla nangul waaye yàlla nañu ko yàlla may ñu fekke ko ay leelatul qadr yu bari yu bari yu bari yu ànd ak wér te lu si jaamu yàlla yàlla nanguñu ko kon nag si biir wéri koor na beneen jaamu yàlla bu fi si nekka mooy lan mooy muudum koor muy zakatul fitr muudum koor beneen jaamu yàlla nekk si biir wéri koor te mudum koor duñ ko joxee mukk lu dul ci weeri koor waaw mooy zakatul fitri duñ ko joxee mukk lu dul ci weeri koor waaw bu dul nekk weeri koor looy saraxe dañ ko tuddee sarax si sarax yi waaw waaye mudum koor moom si weeri koor rek la am ba tax na muudum koor boobu moom lañ bëgg a waxtaanee naka la ñan la ko moom kañ lañ ko war a génne ak lan lañ war a génne mudum koor ñu indi xadis boo xam ne ibnu omar moo ko solo mu ne zakatu fi sunnatun waajiba ala ayaani almuslimin sunna la boo xam ne dafa war zakatul fitri muy mudum koor sunna bu war la si baati jullit yi waaw képp ko yaa ngi la rek te am ko daf la boo ko amul nag ñu jox la ko boo amul loo génnee mudum koor yow disaar nga ñu jox la ko waaye soo ko amut soo ko amee dafa war pour nga génne ko maanaam sunna la boo xam ne bu dëgër la sunna boo xam képp ku nekk si famille bi war nañ ko ko génnee xataa liir bi juddu balaa ñoo julli ji sax liir boobu dañ ko war a génnee zakatul fitri muy mudum koor liir bi nga tey ngenteeguñ ko joxaguñ ko tur kooku sax war koo génnee li nga xam ne mooy eh, mudum koor لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ابن عمر دي صحابي دي دومي صحابي من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على عبد وحر وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين متفق عليه حديث إمام بخاري أك مسلم ابن عمر دي ديغنا صلى الله عليه وسلم دي mu ne farataal na si ñun zakatul fitri muy mu mudum koor kan moo ko farataal si ñun yonent bi salaa sallam yàlla mu ne wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu ñu yonent bi salaa indi yàlla mu ne nañ ko jël nañ ko tiye nañ ko téye bu mu dëgër fa xuzuhu bàyyi mu dem mu dem waaye lum ñu jox rek mu ne fa xuzuhu nañ ko téye bu ne yonent bi sallam ibnu abbas mu ne farada rasulullah sallallahu alayhi wa moo farataal li nga xam ne zakatul fitr bi moo mudum koor si jullit yi waaw mu ne saa saa mooy natookaay boobu nga xam ne moom la ñoo natee mudd ñu ko ee mudum ko natee mudum koor saa boobu bi si gën a wér mooy bu jógee madinatu munawwara muy jógee a munawwara ndik jamono imam malik mi nga xam ne taabii la moom nekkutoon saxaaba yi taabii la fekke na fa ay doomi saxaaba yi ñu ngi amee woon natukaay bu nga xam ne ñoom lañu doon natee si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk natukaay bi gënaa wóor bi gënaa wér si natukaay yëpp nga xam ne sax su ujaay ju bëri suñu demee Madina macha allah dañ ko dee jënda yóbbaale ko waaw loolu bu ñu ko xama xaymaa mu ngi nekk ñaari kilo daanaka ak génn pour boppa bu nekk mu génne ko mu ne saa mu ne tamr ida ñu génne ko tàndarma léegi nag mu ñëw lan lañ yan façon lañ war a génne eh, mudum koor mu ne saa min tamr waaw ñu def ko tàndarma wala saxiir ñu def ko dugub wala mbooxa walla maalo loo xam ne waa dëkk ba moom dañoo dundee loolu lañ war a génnee eh, mudum koor loolu war a génnee mudum koor ñu seet Angleterre lan lañ fi jullit yi gën a eh, lekka mun nañu ne maalo bon maalo lañu war a génnee boo demee suñ ndëkkee Gambia Sénégal foo mun a dem rek nay seet ña fa dëkk la gën a dundee boo demee Arabie sawdi fi mu nekk ne Saudi Arabia tey ngoon ngoonal tey bi ba ëllëg dingaa gis gaa ngi teg ay saaku maalo yi nga xam ne ñu ngoon ñu ngi ko natt pare di ko joxe ko jox miskin soo mu ne ñen lañ ko war a ñen ñoo ko war a génnee ñen lañ war a génnee eh, zakatul fitri mu ne ala abdin bu dee yow danga am ale bi am jaam koo xam ne mu ngi liggéey sa mu nekk sa jaam mu ne kooku yaa ko war a génnee zakatul fitri alxur ki nga xam ne tamit mu ngi nekkoon si yow mu nga goreel ko mu ne kooku tamit dafa war a génnee li nga xam ne mooy muudum koor war na ko góor war na ko jigéen buñ ne weeru eh, muudum koor dañ ko génne si góor yi bàyyi jigéen yi wala jigéen yi ñoo ko war a génne bàyyi góor yi déedéet ñu ne war na ku góor ak ku jigéen ku ndaw ak ku mag waaw kii dama bi am nangami at mënatut a oor xakkañ ah ki mënatut a oor sax dañ ko war a génneel li nga xam ne muudum koor la xale bi door a juddu tey tey tey tey tey ñu war a julli ji kooku tamit dañ ko war a génne muudum koor saxiir wa kabir waaw minal muslimin ku dul jullit nag waruloo ko génnee li nga xam ne mooy muudum koor nga ne man de dama tuub suma waajur bu jigéen wala suma waajur bu góor du julit xaaral ma génne ko muudum koor déedéet boo génne parce que kooku bokkul si ñun si wàllu islam diine déedéet bokku ñu di kooku duñ ko war a génnee li nga xam ne mooy zakatu fitri bon zakatu fitri ki mu war muslim la war a doon julit waaw nekku ne kii dafa maco xam nga su ñëwee si yenn charte diine yi nga xam ne comme julli la wala or wala yi nga xam ne dañoo ne albaali ki nga xam ne dafa maco waaw waaye zakatu fitri amul loolu zakatu fitri ki gën a néew si famille bi sax dañ ko war a génneel zakatu fitri muy mudum koor ñu ñëw si ixtilaafu ulama yi borom xam yi nga xam ne ñooñu faram-fàcceel diine yi muy imaam Abu Hanifa imaam Malik imam Shafi imam Ahmad muy foo scolaires yi ñii li ñu jàngal mooy lan imam Malik Shafi Ahmad ñoom ñëpp dañ d'accord na ñetti imaam yi ne zakatu fitri waruñ koo génnee si xaalis waaw waruñ koo génnee ci xaalis du sunna du sunna ñu génnee xaalis zakatu fitri comme ñun ñu ko defee fii déglu leen de ñit ñiti borom xam yi lu ñu wax mooy ne zakatul nañ ko génne si li waa dëkk ba di dundee ko war a génne amma xaalis déedéet kana indi xaalis imaam abu xanifa rahimahullah imaam yooyu yëpp moo leen mag imaam abu xanifa moom rayoom xela xelam la jëfandikoo foofu mu ne su fekkee ne nit ñi ñu ñëpp dañ ñëw jox benn nit ki maalo wala ñu jox ko dugub kooku soxla na yeneen yu mu war a jox si bési julli bi bugg na jënd ndawal yere pour doomam bi daala pour doomam bi bugg naa jënd leneen ak leneen leneen ñëpp suñ ko joxee loolu dafa am pour war a jëlaat lii di ko jaayiwaat pour undi lii pour uti li nga xam ne moom la war a jëfandikoo si bési julli ba mu ne bon nag su ñuy joxee mm, mm, dunda ñuy joxee xaalis su ko defee kooku miskin bi mun a faj soxlaam si bési julli bi mun a faj soxlaam si bési julli bi bu dee ko suñu dëkk li ñu ko defee nga gis ne miskin bi xëy ñëpp bugg na doomam bi am bu julli kooku soo ko joxee ñëpp ñëpp suñ ko joxee maalo bugg naa jaay maalo bi pour jëndal doomam bi mbubbi julli ba mu war a sol si bési bi ndig bés la boo xamee ne ñëpp si war a kontaan waaye su jooree maalo bi doomam bi amul mbuba bu ees bu mu sol xale yëpp san sa ndeysaan sa yaram dafaa daw soo loolu imam Abu Hanifa façon xalaat yu la indi loolu tax soo gisee fii si Europe America li gën a yomb si ñun mooy ne génne xaalis génne xaalis parce que man mi wax yéen nii su fekkee ne ñi maa jox seen mudum yëpp dañ ma doon indil maalo ah, wax dëgg ne yàlla naa ma ne naa leen wane du ma ko mën a téye parce que du ma am fu ma ko def te daanaka du am ñoo ko jox tamit waaw ni nga mën a joxee ñu xam fii mudum koor xaalis ndax di nga ko mën a joxee li nga xam ne mooy maalo wala tàndarma wala euh, dugub walla mbooxa wala loo xam ne ñu ngi koy dundee fii bon nag sunna bi dañ ko leeral du woon xaalis xaalis léegi la ñëw dafa mujjee waaye jamono yonent bi sallallahu alayhi xaalis zakatul fitri muy muudum koor kenn mësu koo joxe waaw waaye imam Abu Hanifa ci fa nekkoon rayaam xelaatam bi am na borom xam-xam ñu koy rafetlu ñu ngi koy def waaw ñuy jox miskin yi xaalis su ko defee ñu mun a toppatoo seen bopp tamit comme ni ko yàlla subhanahu wa taala comme ko yéen saa waxee ne bés boobu bési kontaante la ñëpp a war a kontaan léegi gannaaw bu ñu waxee li nga xam ne moom lañ war a joxee muudum koor ñan lañ ko war a jox ñan ñoo yeeloo muudum koor wala ñan ñoo ko deserve borom xam yi ñi yelloo zakat asaka bi ñoo joxe at bi maanaam juróom-ñett yi yàlla tudda si alquran mu ne di same people di same nit ñoom ñoo yelloo zakatul fitri muy mudum koor waaw macha allah waaye nag dafa am ñoo xam ne ñoom lañ war a njëkkaa beral loxo am na ñoo xam ne ñoom lañ war a ñi war a njëkkaa beral loxo mooy miskin yi waaw mooy miskin yi ni ngi sa sala mu ne bés boobu dañ leen war a jàppale pour buñ laajte waruñoo gis miskin yu ñu laajte waaye ndeysaan unfortunately boo demee suñu réew ya bési korité dafa mel ni ñëppay miskin lañ ñëppay ëppa doole bi ñëppay génne si di yelwaan bési korité boobu te si sunna dañ war a jàppale ñooñu yëpp ba ñëpp toog seen kër ku nekk la nga am nga lekk ko sa njaboot. Musa Sala mu ne ainhum Ani soal fi hada اليوم mu ne nañ leen jàppale pour buñ laajte buñ ñaan buñ saraxtu bési julli waaw nañ leen jox loo ne ah nañ ko mun si bés boobu célébrer ak seen famille et si bés bu màgg bu nga xamee ne àdduna bi ñëpp koy célébrer waaw ah. zakatul fitri lan la moo ci adama bi yow mi ko génnee yow mi génnee muudum koor lan la muudum koor di def si yow ba njëriñ la amal ah man di oor naa balaa maa julli wax nañ ma dinaa saraxee muudum koor joxe naa ko lan mooy faida bi lan mooy njëriñ bi yàlla lu la santaane yéen saa salaam lu mu la wax rek am na njëriñ mu ne njëriñ muudum koor tax tutaxiru nafsu saim mimma yakunu qad bi biha min asaari laxwin wa rafasin gis nga san juum te yi nga xam ne moom nga doon juum bëccëg wéeri koor xool nga lu xaraam wax nga léegi-léegi ritale déglu nga loo xam ne xencu nga loo xam ne yëpp loo xam ne bàkkaar la yéene nag doo ko tey waaye nag bàkkaar la doo ko tey waaye la ñu ne nag zakatul fitri mudum koor mooy ñëw pour setal la si bàkkaar yooyu subhanallah dafa mel ni kapinta bi buy liggéey capitaine bi dafa liggéey pare waaye am na police boo xam ne moom la moo def si banta bi loolu mooy ñëw nag génne taari banta bi mun naa liggéey nga ne oh liggéey bi rafet na waaye ba léegi am na lu si des mooy ne su fa defee police bi rek nga gis nag taar bi gën a génn zakatu fitri noonu la mel yaa ngi doon or xakka yaa ngi am bu or waaye am na baakaar yi fa des am na yoo xam mu ngi taxa si kaw maanaam am na lu xam ne mu ngi ñuul si bi si biir sow bi lu ñuul loolu nag lan mooy koy génnee ñu ne zakatul fitr bi mooy muudum koor bi moo koy génnee allahu akbar bu nag boo benn la njëriñu muudu koor mooy génnee baakaar yi nga xam ne nit ki def na ko njuumte yi nga xam ne nit ki def na ko si bëccëg weeru koor mu ne zakatul fitr bokk na si li moo def tamit gene añan gene añan sa diggante badole yi sa diggante ah niklan, waaw ndig lan bëss julli bobu bo leen joxee luñ contane wallahi dañ la ñaanal kontan, ci yow waye bu ñu gisee sa doom yaangi contane sa doom yaangi am bu julli ñu ngi waye do seen doom ay amuñ te nga leen ko defal añan ñëw na sa sa ñëw na sa ñom parce que yaangi defal defal lo leen lañ ko war a génnee ban waxtu lañ ko war a génnee boroom xamam xam yi dem nañ ba yaatal ko jamono yonent bi salaa bés bési julli lañ ko daan génnee balaa ñoo dem julli ji ñu génnee ko balaa ñoo dem julli ji ñu génnee ko mooy sunna bi boroom xam ne léegi ñu yaatal ko def ko ñetti fan balaa ñu julli ji comme ni ko commencé ëllëg wala tey ba tey war nañ ko mën a génnee àllarba alxamis ajuma yëpp ñu génnee bu julli nekkee samedi fekka ñi ko war a jot jot nañ ko si ajuma ji ñi ko war a jot jot nañ ko si ajuma ji ñu mun a toppatoo seen soxla yi lii mooy proposé zakatul fitr waxtu bu ñu ko war a génnee dañ ko war a génnee balaa ñoo dem julli ji waaw su ko defee miskin yi mu a toppatoo seen soxla yi amma ki nga xam ne nag def ko génnee gannaaw bi mu julli ba ñëw lan lañ ko ooyee kii ne dama faate julli ji ba ñëw fàttali ku ne génnewut zakatul fitri di muudum koor lan mooy àtte loolu àtte bi fa yomba yéen saa sala ne ki nga xam ne génneew ko ba dem julli yi ba ñëw mu ne kooku amut muudam koor waaye joxe na sarax si sarax yi bi wér eh, muudum koor di setal baakaaram yi def si wéeru koor bi dafa mel ni ko kooku mu ngi def sa baakaaram yooyu allahu akbar allahu bon nag mbokki julliti buñ caaxaanee muudum koor buñ ko caaxaanee nañ ko fàttali wante suñ biir nañ ko reminder suñ biir koo xam ne xam nga ko ne diw ah mbaa génne nga koolal diw mbaa génne nga seen zakaatul fitri mbokki julliti ndik oor ba weeri koor bi jee njuumte yi nga des eh, def si weeri koor bàkkaar su yi nga def si weeri koor ba léegi yooyu mun ngi la toppa te nga amoon lu ndaw loo xam ne moo la ko mun a raxasal muy li nga ay eh, ne zakatul fitri di muudum koor moo la mun a raxasal eh, bàkkaar yu ndaw yooyu bi may déglu nañ leen góorgóorlu ñu génnee ko lii mooy waxtu bi waaw du nekkaati mudum koor sarax la si sarax la xadis osman osman bun afan zonu reyn ñépp xam nañ kat mooy osmaan amoon alel tabi si alel di joxe joxekat la woon benn bés ndox dafa ñàkk madinatu mun a wara a am benn yahud bu am teen qiblatain soo fa demee mooy ma jumaa bi ñoo ee ñaari penku yi sorewut ak islamique université bi danaka dañ ko daan ndox ama benn gardien bu fa nekka gardien bi yaxuta ko moomoon am teen bu fa nekka nag mu ne defaa jaay teen bi ndox a ngi ñàkk Madina allahu akbar yonent sa saa mu ne man bi staral bira falahul na ku jënd teen boobu rek yàlla na koo joxe arjana balaa saxaaba di yëg Ousmane daw na dem na këram indi alal bu bëri jënd teen boobu ne joxe na ko fi sabilillah bon Ousmane waa yéen sala sallam wax na arjanaam balaa moo génn àdduna Ousmane benn julli génne zakatul fitre ba ñëw ñëw nag génne ko mu ne yéen bi salaa sallam ah man na dama fàtte woon a génne zakatul fitre waaye génne naa ko waaye ew ma si génne ko rek maa ngi goreel fukki jaam macha allah te tam buy jaam jaam ale woon si dëkki arab yi waaw comme ki nga xam ne yu gën mu ne ko yaa Ousmane ay yow Ousmane ñàkk a génne muudum koor si waxtoom ba julli ji ba ñëw mu ne soo doon génne at bi yépp lu tolloon du tax mu em ni muudum koor allahu akbar allahu akbar déglu ko yéen sosal la wax Ousmane de nga génnee nii di ko def ay multiple juróomi yoon nangami yoon di ko génnee bés bu nekk zakat ne yaa ngi génne asaka du mot bés boobu nga xam ne raw na la allahu akbar xoolal yonent bi salaa sallam ne osmaan ndig loolu rek at bi yëpp su ko doon génne mu dum ko sax lu tax mu am li nga xam ne mooy bi ko raw bon baax na baax na ñu fàttaliku ku nekk sa am di jaama yi sa xarit yi Facebook bi WhatsApp bi fàttali leen wallahi nga am tiyaabu fàttali leen ne ah mbaa fàttali loon zakatu fitri bi génne leen ko ko da ko war a génne balaa balaa bési julli bi moo gën sax ndik fii mbir dafay xat trop dafa xat dafa xat waaw su ko defee nag suñ ko génnee ñu mun koo jox ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox waaye comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee ñan ñoom moom waaw comme ni ko doon waxee rek mu ne soo gisee ñu joxee ko xaalis rek dem nañ bi nga xam ne ah li xew rek mooy ne darura la maanaam fi mu nekk nii miskin bi daal xaalis rek moo ko arrangé soo ñu ne nañ ko jox xaalis comme ni ko borom bi waxee si téere bi mu ne illaa li darura waaw bu dee amul benn option ne fi mu nekk nii daal kii lii moo ko arrangé nañ ko ko jox xaalis waaye mu muudum koor si li ñoo lekk lañ ko war a génnee mooy xadis bu wér bi mooy sunna bi loolu tamit ñu ne mburum koor tamit bokk na si njëriñam mbokk jullit masaarifuha ñen lañ ko war a jox masrafu zakatul fitr ka masrafu zakat amma gayra an al fuqara wal masakin awla bihima min al yàlla dafa tudda juróom-ñetta xam ne ñoom lañ war a jox zakatul fitr mu ne waaye si eet yooyu yàlla compté miskin bi ak fakir bi ñooy priorité maanaam ñii ñoo njëkkaa yelloo ku ñu jox leen zakatul fitri mooy mudum koor miskin ak fakir ñaar la si ne kii miskin la miskin bi am na lu ko am na tuuti waaye lu am doyu ko bu amee lum añee du am lu mu waaye fakir bi nag amu dara mooy ki nga xam ne dafaa dem rek yàlla ngir yàlla lu waay am te antal masata lu waay am te antal kooku moy fakir amu dara koku rut su la ci mune yalla ya subhanahu wa taala mune lañ jike ci si ñaari nit ñi suñu pare nak ñu ne bi moy dajale mudum koor wala kene ci mos committee bi moy dajale mudum koor sharia mune koku dañ ko wara jox si mudum koor bi dañ ko ci wara jox niko niko sharia wa charia suba wa de du suma dem di dajale mudum koor kooku dafa war a am waalaam si mudum koor boobu dañ ko war a jot ndoonte sa génne na waaye dañ ko war a fay ndik loolu liggéey la islaam bëggut ni ki liggéey ñaxa te fayuñ ko mu allafat mooy ki nga xam ne nga ne kii mooy borom dëkk bi waaye du julit waaye julit yi ragal nañ ne kii mun na leen fee wala mun na leen a bundu xatal si dëkk bi ñu ne nañ ko jox zakatul fitri ndax mu am yërmande si julit yi bu gisee ne jul yaa ngi ko eh, eh, gift ñu ko jox neexal su ko defee dina am like prime ministre Angleterre tey bëggoon a sonal jullit yi ñu ne axakañ ah, nañ génne si xaalis bi ñu génnee alal bu duuf ne ko am ñoo la jox lii bi ko sof suñ julli eet bi ibnu sabil ibnu sabil mooy waa ji nga xamee ne doxandeem la tukki na bàyyi na réewam dema si beneen réew yàlla def mu am ay jafe-jafe mu am ay tolof-tolof amaan na sa am na xaalis da ka am xëy na mënut a withdraw mënut def dara kooku si saa suñ ko gisee dañ ko war a jox si zakatu fitri bi kooku dañ ko war a jox si zakatu fitri bi o fi sabilillah o fi sabilillah bari na nag buntu fa fi sabilillah mooy ne jàkka juma bu dee ñu ngi ut juma xaalis si mudum koor mun naa dem si juma mun naa dem si lopitaan bi ñoo taba mun naa dem si school bu ñoo tabax eh, mun naa dem si pompe mun naa dem si teen bu ñoo gas laa lañ wax si yoon yàlla waaye nag wax nañ ne ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a njëkkaa jox mooy fuqaraay ak miskin yi ñaar ñii kii dafa ñaaka waaye ñaakam dafa ko mel noonu su añee du reeru su reeree du ndeewoo kooku miskin la faqiir bi nag mooy ki amul dara dara dara dara kooku moom bés bu nekk mu ngay yaakaar mu ne ñooy ñoom lañ njëkk a war a jox buñ joxee ñii ba pare nag ñii ne suñ si mënee jox seen wàll ñu jox leen jox leen ak ki nga xamee ne dafa tuub dafa tuub si islaam ku ne mu nañ ko jox zakat bi pour lan welcome ko won ko ne diine bi diine yërmande la diine joxee la ki nga xam ne mu ngi dem uti xam-xam saaku ci xam-xam ñu gis ne kii mu nañ koo jox pour mu am yóbbal ki nga mu ngi dem jihaad pour préparer boppam mun nañ ko koo jox kon nag ñi ñu war a jox mene comme ni ko alquran waxee innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin wal aamilina alayha wa muallafati qulubi wa fi riqabi ibn sabil bi aaya bi jeex ñu la yàlla compté nit ñi ñoo war a am zakatul fitri parce que léegi-léegi nga gis nit ñi ne ah zakatul fitri lu tax ñu war ko yóbbu si jumaa ji waaye fekk ñàkk xam la ñu ne leen leeral yépp ne leen suñ collecté zakatul fitri bi mudum koor bi am na ñu nekk suñ biir ñu ngi am jafe-jafe dañ dee dem si sutura ñu jox leen li leen war a jox li si des nag ñu dugal ko si kees yi jumaa ji ñu noonu lañ ko defee at bu nekka ndi jumaa am na si wàll ñi ko collègue sax daanaka du duñ leen duñ si dee jox ñi ko dee collègue duñ si da jo te ñooñu ñu raay dañ leen ko dañ leen si war a jox charia moo leen ko jox islam moo leen ko jox kon nag lii sa zakatul fitri mbokk jullit yi ku ko dégga chia ko sa facebook sa xarit yi am di jaama yi fuñ mun a nekk ñu jot si te pare ku nekk nag dëkk bi nga ooree foofu nga ko war a génnee zakaatu fitri du toxu beneen réew fekk amul kenn ku ko fi nga nekk bu ñëwee ba fii amul kenn koo xam ne nit na zakaatu fitri war nañ ko mun jox muudum koor amul ñu war a jox fii bu baax nag islaam mu ne nañ ko jaalale yobbu ko feneen waaw bon nag génne ko fi nga ooree mooy sunna bi tamit nañ leen toppa sunna lii moy li nga xamné moy modum koor ñaan subhanahu wa taala yalla ñu ko yalla nangul yalla ñu ko fekki at yu bari bari way tamit yalla na fa jub day def ci biir wéré koor bi inshallah tamit affaire julli bi si waxtaan ndik la ci yaangi bu ga bari légui ci julli eid bi julli boo xamné ne suñ ko experience ku nekk war julli sa kër ndeysaan e, family bu nekk am ku leen jité soo amul ku la jité nga julli sa ñaar raka muy goor muy jigen waaw nga jul sa ñaar raka kon nag dañ si waxtaan nañ ko faram-fàcceel kon nit ñi naka lañ koo defee incha si waxtaan bi ñëw di ñaan yàlla mu may ñu fekkee ko tetal ko yàlla ñu yàlla defal jaama allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annaari wa adxilna jannata mal abraaru ya azizu ya afaaru ya rabbal alamin allahuma taqabal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruquna ya rabbal alamin aid lana shahr ramadan <clears throat> بالسهد والجميع يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ويقينا صادقا ونسألك اللهم دوام النجاة من كل بلايا ونسألك اللهم دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على عافية ونسألك عن الناس يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا فضل عارفين بحكمتك وانزل علينا رحمتك وزكنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا يا رب العالمين اللهم أعيدنا شر رمضان أمامنا العديدة والأزمة المديدة بالصحة واليمن يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا عفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين